daal di toog kenn fayu leen seeni bourse loolee nag doon du leen métti lool ba tax na ñu génnoon janoog taskatu xibaar yi ngir rek daal di alerter xamal autorités yi ne jamono ji sonn nañ lool. ku nekk xam na étudiant li ak bourse nu mel ak moom ndax bourse da di loo xam daf koy dimbale si yu bëree bëri beneen bi mooy étudiants yi si ëpp ñoom dëkkuñu ndakaaru dañ fiy ñëw di louer. ba pare si bourse boobu noonu la ñuy yaakaar di mën di fay seen location si bourse boobu la yaakaar tamit di mën di régler seen yenn besoins yi ba si bourse boobu tamit la yaakaar tamit di mën di dund. bile situation daal di leen jular loolaange yu méttee métti bari na si ñoom ñi nga xamante ni nii jamono jii jafe na ngir ñu fay seen location. bëgg nañ bourse yi bu ñu ko fayee fayatee di manière physique. mooy di taxaw ñu la koy jox mais ñu ñu koy fay si nga xam ne moyens yi nga xam ne nii moom réew mi am na ko te ñëpp xam nañ ko ñu ñu koy bancariser comme ni ñu xam ne moom def si yenn université yi nga xam ne mooy université publique yi lu si mel si yenn lycée technique ak centre formation yi am ay jumtukaayam te yàgg-yàgg ba nga xam ne ni kenn utiliser ko te dañoo nekk si adduna boo xamante ni lépp dafa changé lépp nag bu changé ñun tam dañoo war a dox ànd ak changement boobu noonu si adduna bi. xamle nañ ni fii fa fan yii di ñëw su fekkente ni saafara wuñ seeni jafe-jafe seen grève bi lee dinañ ko wéyal. te grève bi nag fare fas yéene wuñu ko arrêté dañ koo bëgg a continuer ba nga xam ne day jàll si niveau national ba xam ne ñëpp dinañ ko mën a yëg depuis presque deux semaines ñoo ngi si grève.